jërëjëf mbokk yi ñu daal di ñëwaat indiwaat fenugrec ak diabète ki am diabète bëgg jëfandikoo lii di poudre fenugrec ma wax ni nga xam ne noonu nga koy jëfandikoo jëlal kuddu kafe ci poudre bio bi nag laa la wax nga jël kuddu kafe gi nga xaaj ko ñetti xaaj benn xaaj bi ngay jël infusé ko ci kaas bu mag bi ngay ndékkee soo xëyee suba balaa ngaa lekk dara moom ngay njëkk naan kon ki am jabet bëgg fajoo lii nga xam ne moo di fenugrec soo xëyee suba da ngay jël kuddu fenugrec bi nga xaaj ko ñetti xaaj benn xaaj bi nga infusé ko ci kaas bu mag soo xëyee suba nga naan gannaaw suba nga jëlaat beneen xaaj bi ñetteelu fan bi nga jëlaat beneen xaaj bi noonu nga koy fartal di ko defee soo ko defee di nga gis su suukar dina stable dina normal kon képp ku am fenugrec am diabète bëgg ko jëfandikoo noonu ngay def képp ku ci bëgg lu la leer mën nga daal di woo 77 244 98 05. jërëjëf mbokk yi ñu daal ñëwaat.